Ousmane ñu ne ñu ngi ci moto yi pour l'instant nii jàngotal na jàngoot jafe-jafe yi moom bëri na de dafa bëri trop sax waaw parce que mënuñoo jaar fenn fu ñu jaar ndox maa ngi ñuy tis ndox maa ngi tawal suñu moto ndox maa ngi yàq suñu moteur yi yoon yi baaxul dañooy am problème moto day am problème cadre bi day am problème parce que cadre bi day sall sall boo xam ne nii xam nga raxas mënu koo seetal ñaan pour ñu dimbale ñu ko xanaa ñu defaraat suñu tali yi tali yi ñu defaraat ko bu baax dafa suñu tali yi tali yu bees yi ñu defar nii muy taa ñu defaraat ko mu baax defaraat yëpp ñu baax loolu ñun loolu lañ bëgg ñun waaw su tali baaxee rek lépp baax ah amatuñ benn problème amatuñ problème beneen ñu daal tali yi ne baax yoon yi ne baax marché ba ñu defaraat ko mu baax parce que marché ba salte na xeeñ na xun salte kenn mënu faa dugg. xéwal suñu borom la nawet moom fu ko fek te fu lañ koy bàyyi tëlu yàq yi moom miin nañ ko xanaa ñi fi nekk gan ñoo ko miinut waaye ñun moom miin nañ ko gaa nag am ay baax yu fi nekk waaw waaye nag am na yu yàqu yu fi nekkin nag. waaw ñu ñaan daal maire bi moom bu ñu mënoon dimbale moom daaxal ñu tëli yi bënn moom dana baax lool ndax dëgg fa yàlla maire moom jàmbaar def na ay tëli yu baax moom bu dee tëli moom yu baax am na fi waaw da am moom yi nga nooroo na am ci nawet ndax daw léeg-léeg ba gisum pax pax mi day rempli ndox ba fees boo si dóoree day dagg pneu bi mais nag man ta ñàkk ndax nawet moom fi lañ ko fekk daf lañ koy bàyyi xuy yi nii lu toj bu ñu ci dimbale moom dana baax trop dafaral ñu ko mu baax Malick Pouy ñoo nawet moom maanaam daaniki rek taw la baaxoo ñun taw bi moom lañ doon ñaan yàlla bari yàlla may ñu ndox mi ndoxum jàmm la nag mais nag euh, yàqu-yàqu bi moom même bu dul nawet nii sax ñun dañuy yàqule taxi moom ak di taw di paan di dépanner rek ñun ci yooyu la ñuy dox daal loolu moom miis nañ ko problème mu tali yi moom euh, macha allah am nañ ay tali fi mu nekk nii moom par rapport ak ak bu njëkk xanaa ay kamb yu ndaw ndawaan yi fi nekk te loolu moom buñ ko defaree moom dégg jàmm la. Xaadim Ngom la. di ñuy jàngoon dafi problème mu ndox am na ci ak problème mu yooyu fii nii ndax des fois jooy dañ fiy bëri doo mën a liggéey sax balaa ngaa liggéey da ngay taal say garabu yoo loolu yëpp da ciy am ak ndox mi taal fii yëpp parce que démb kese moo ci mujj dafa bari ba dañoo génn xanaa ñu bu ñu may sar suuf ñu defal ñu fii nii ak fii ci biir yëpp. dina ci baax trop. bi moom xam naa ay problème bu fii lay doon bu bu tawee électricien yi. Cheikh Diagne liggéey beeg nawet bi de bu bu commencé taw rek ñu commencé ñu fattu ndax amatul du ñu am fu ñu jëm te bu tawee bu pare après fii day taa day versé ndox xam naa ni heure bi nga fi ñëw la mais fii yëpp ab déeg lay doon. day fees del boo duggee ba ci biir fee noonu noonu la lépp yooyu ak yooyu mooy mooy loolu day bëri fii loolu trop. kay ku ñu jàppale ñu jël ndax loolu rek lañ soxla. waaw ah, loolu daal xam naa buñ ko amee it moom ñu jël ci xanaa sëkkal ñu ko wala ñu jàpp ñu ci yeneen moyen daal yoo xam ne mën naa gën a baaxal liggéey bi daal waaw ah, loolu mooy inondation bi rek moo waral loolu parce que kuy xuus si ndox xam naa amoon la gënal boo amoon la gënal da ngay jaar foo xam ne doo am benn ndox mais fii taataay yi bëri nañ ci dëkk bi lool waaw ah, boo demee ba booru post noonu xool nga foofu ni mu mel bu tawee bu tawee day fees del mais foofu sax tawee na ndax day day dem mais ginnaaw sappoor bii moom nawet bi ba nawet bi jeex ndox mi du fa waaw te daanaka mooy suñu ginaaw nii rek ñun nag fii problème fii lañu amee moom rigolu garage bi mooy verse fii bu ko defee fii yëpp day fer fees ak ndox chauffeur yi xanaa ñuy teggi ndox mi rek mooy di ko moytu ndax loolu mooy yoon ndax aussi ndox gis foo xam ne lay yàqal moom nga jaar fa itam aussi loolu problème lay doon daal